assalaamu aleykum bonne naa ne tous atum 2014 mi ngi dem atum 2015 fas yéene jamet suñu kanam ñi ñaan yàlla atum 2015 bile dàqal ñu atum fuuf ñi ñaan yàlla sopp ci lu bari defar ci lu bari rawatina jikko yi muy ci góor di jigéen di mag di ndaw yal na ci yàlla defar jikko yi bu baax a baax yàlla ci yëkkati ci lislaam wàcce kéefér yàlla yëkkati dëgg wàcce fenn yàlla toxal ci naafeq ak rambaaj moo xam ci bërëbu liggéeyukaay yi la moo xam ci kër yi moo xam ci métier mi ñu nekk ci métier tas xibaar mi la ak métier ci des yàlla sotti ci xewal mu baawaan ci biir askan wi àdduna bi Afrique fu mënti doon yàlla nekkaat moo xam ne yàlla da ciy jote ñi xam ne dañoo defoon ay rëcc rëcc yëpp yàlla teg leen ci yoonu siraatal mustaqim yalla na ci yalla jéggal suñu way dawlu yi xamna ñinga ba sax yalla yàlla ubbi seeni bàmmeel ba mu leer nañ yàlla na bu ñu gis lu leen jaaxal ci seen bir bàmmeel ñi xamna na ñoo nekk ci kaw su siita nekk ci tolof tolof rawat nañu febar mo xam ñi nekk ci kër yi la wala ñu tuddu ci hôpital ya am nañu feebar te ñoo dem ci hôpital ya ñoo tëdd ci seeni kër ndax bu ñu tëddee njaboot ga dinañu lompoñ lool noona la ñuy doxee feebar ba ngir wuti lu ñu yóbbu ca kër ya loola yépp yàlla gis na ko yal na ko yàlla faj ci mbaaxam ak kàttanam ci atum 2015 bi suñu Sénégal gi de mooy suñu Sénégal ñu ngi ñaan yàlla ci atum 2015 bi na ci yàlla sotti ndoxum jàmm suñu njiit ñu jiite yàlla teg leen ci siraatal mustaqim moo xam ci wàllu gouvernement bi la ci wàllu diine ji ci wàllu aada ji ci wàllu cosaan ji le yal na yàlla wëlbati ci lépp loo xam ne luy lore la mu daal dañuy du mooyu ñun ci suñ biir ci atum ay góor ak i jigéen ñoom ñoo séq adduna bi lii dëkk bu mën ci mënti doon moo xam ñi am jëkkër ak ñu amul jëkkër ku ci bëgg jëkkër yàlla na la ko yàlla may da nga jëkkër joo xam ne du dëggu la ngeen nekk ci li xam ne moom moo di dëgg rek bañ a fenante naka nonu ko gor kayit yal na la yalla may soxna so xamne ci deggu lay doon ngeen and nek ci deug jabot gi yalla tek ci barki dañu barki lay tek ci atum 2015 ak ni suñu kanam ñu war ci mëna xolaat bu baax suñu bop nak soppi jikko ya jëfin ñi le rawatina yenn bérébu liggéeyukaay yi xam ña nekk ca bop ba nekkaluñ fi kenn lu seen bop seen bis bu yàlla sàkk ñi gën a misère ñoom ñi gën a nekk ci seen ndaataak talax par parlo gi ci bérébu liggéeyukaay yi lee yal na ko yàlla dindi ci atum 2015 bi ñu nekk ni lee may ñaanal jàmm képp ko xam ne yaa ngi ak foo mën a nekk atum 2015 bi yàlla nekk atum naataange atum xéewal atum jàmm atum wërsëg atum booloo atum jàppante atum bëggante te yàlla tax bonne heureuse année Atos.